ñu ngi fi teew teewal ko fi dafa xam ne boo ñëwee bu amee ngant mu xam ne boo ñëwee fekk bi njabootu njabootam gii di njabootu Sëñ Tuubaa dana mel ne moom dong nga fekk kon danaa jox Sëriñ Bassirou moom mii ñu dénk loolu digal ko ko man nag sant rek santu sëriñ bi rek laa jot li sëriñ bi moom sëriñ Tuubaa rek ko yor kon nag ku mu mën a doon ak foo mën a jógee te sëriñ Tuubaa tax la jóg gàttal loolu rawatina ci nag président de la république jug wan gannaaw lépp Sëñ Tuubaa tax koo jóg mu ñëw fii la sëñ bi bëgg lépp ba mu duggee dëkk bi la ko amoon ci moom te njabootam kii nekkal ko fi di ñëwal Sëñ mbégte mooy seen mbégte mu nekk rek tool yi la nekk kon nag noonu la demee jur ku dee sëñ Bara ko àggale waaye am na kàddu yoo ko wax léegi nee ko na sa xel moo fi nekk li ngay def sëñ Tuubaa tax nga di ko def kon continuer di jëf di def bi sëñ Tuubaa dama la gàtt lu ci lépp ndax àggu na lépp te lu ko waaye defal mu mu fëral la ko na sa xel daal bu baax dëgg la teel a def leen njaboot njabootam gi ñoo koy jëriñoo waaye suñu tool rek moo fi nekk mooy moo moo moo moo moo jëflante kuy jëflante ak moom mooy jëflante ak yow. jëf kenn la ci jëflantul fenn kenn jëflantul kenn ci dëkk bi suñu tool rek la jëflanteel te moo te te te gis na ko loo xam na. kon na sa xel daal bu baax waaw da ngay continuer nekk ci li nga nekkoon waaw léegi de góorgóorlu ci yéen ji nga am ci réew mi góorgóorlu ci rek te te te te te Sëñ Tuubaa mi mi mi mi mi tax a jóg ñoo ko gën a yëg mu gën laa yitteel mu ëppal la njëriñ tey nga la loolu rek moo ci am solo na sa xel daal bu baax dëkk bi. suñ tubaab rek ngay jëflante jëflante boobu rek kenn loolu suñu bas moo tax